muy jàll nag ci yonante yi di xamle ne ku ñu soloo maanaam ku yàlla wax yu nit rek lay doon góor it lay doon du doon jigéen góor lay doon du nekk jaam gannaaw bu ko yàlla wax yoo ba noppi nag mën na caa boole digal ko ne ko jottali bu ko defee kon muy nabiyul mursal mën naa am itam nag joxu ko ndigalul jottali muy nabiyu kese te nekkul mursal mbaa nga ne nekkul rasul bu dee nag ku yàlla wax yu ba noppi jox ko ndigalul jottali am na yetti melo yoo xam ne mënta ñàkk ci moom faaw rek mu amee leen yokk na ci benn sax muy ñeent ñett yi nga xam ne moom nga daan jàng ci téere yi naka jekk mooy faaw kooka day dëggal dëgg rek lay wax du wax mukk lu bokkut ak la am ñaareel ba faaw mu sàmm kóolu ci gi ko yàlla wóolu sàmm kóolu tega mooy du jege lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sib ñetteel ba mooy faaw mu jot li ndegam daa am ndigal jot li faaw mu jot li la ko yàlla jot li loo du ca yokk dara du ca wàññi dara mu dolli ca nag foo ko fekk day nekk ku matum xel yaatu xam-xam ndax yàllaa ko koy defal day nekk ku rafetu làmmiñ mën a jotuli bu baax a baax ci làmmiñ wu leer a leer la mu war a jotuli alfataanatu mooy am nga yeewute bu baax xam ne mbir yi lool nga xam ne ku ñuy waxal ku ne xam nañu waxee yow fu ñu fekk rek ku yàlla yónni ci biir ña mu nekk moo ci ëpp am xel gën caa rafet nu muy leerale la mu xam ci xolam yonante bu ne yàlla dana ko may moo ji sa mooy yàlla dana ko may kiimtaan goo xam ne mooy tax ñu xam ne moo ko yónni nekk bu dee yonante yàlla saalihu ci alquran da nga gis la xewoon ca gëleemam nga bu dee Muusa da nga gis la xewoon ca yatam wa bu dee Isa da nga jàng ci alquran nam daan faje fi saasa ku yàlla bind mu indaale gumba wala tawat yeeg ki mënutoon faj ci yooyu jamono ni ki siiteeg yooyu yàlla may ko mu di ko faj fa saasee saasa ba mel ne loolu mësta dal kooka yonente bu ne rek yàlla da koy may mu aji sa kiimtaan goo xam ne lu xotti baax lay doon ñoom jamonoonteel kenn du ko ca man mu wane ni moom mi yàllaa ko yónni ñu war koo gëm nag te topp ko bu dee yonente bi moom muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa bari ay moojisaat lool am na téere yoo xam ne ñu ko cay wàññi di ko wàññi di ko wàññi waaye jàpp nañ ne mujisaam bi nga xam ne moo gën a rëy ci mboolem ay mujisaatam mooy alquran ci boppam alquran day mujisa day kiimtaan goo xam ne ba léegi sii lu jamono gën a dox xam-xam yi gën a yokk mu gën a yéene gën a lotal mbindeef mbindeef gën a xam ne lii ci yàlla la bawoo du waxi mbindeef mboolem ñi yàlla yónni ka ci gën mooy muhammad dana wax ci kanam sax ne mboolem li yàlla sàkk muhammad moo ci gën yonante bi yàllaa ko jagleel mu gis yàlla ci bët yi nekk ci boppam muy bët yi ngay séen yàlla soxal ko kenn ku ne ay bëtam moom mu gis yàlla fii ci àdduna njëkk muy dem ca alaxira loolu yàllaa ko ko jagleel ba tey yàllaa ko jagleel yéege gam ko yéege woon boole yaram waa rooga yépp yéeg wuy ji boromam ci asamaan suñ borom déyaaleeg moom lam déyaaleeg moom loolu yàllaa ko ko jagleel mu bi liwaay ak ci liwaaul xamd am na drapeau ba ñu tuddee liwaaul xamdi su bis pencee daañu ko takkal drapeau boobu mu noorante bi drapeau bi tiim ko moom ak yonante yi ci des nee nañu am na hadis bu wax ne aadamu fa man duunahu min al ambiyaay taxta liwaayi yowmal qiyaamati aadam maag ku ko féete suuf mooy ku toppoon ci gannaawam ci xeeti yonante yi dañu nekk ci ron sama drapeau bi su bis pencee man xaw ba boobu nee nañu alkawsar dañ koy tuddee muy naanuk teraanga goo xam ne mooy gën a weex soow gën a neex lem xetam dàq xetuk misk xeetam yépp ñi ci yàlla baaxe daañu ca naan te ko ca naan doo marati mukk mukk nee nañu nag la cay taxa naan mooy gëm ba noppi saxoon ci sunna waaye koo xam ne dafa nekkoon ci bidaa baa fortoon gëm moom bu dikkee bëgg naan dañu koy dàq nee nañu wax ji gën a wóor mooy dañu naan ci déegub teraanga boobu ba noppi door a jéggi siraat ndax nit ñi bu ñu génnee ca seeni bàmmeel dañuy mar lool su ko defee nag yàlla xéewale leen ñoom ñi mu baaxee ñu xéwalu ci naanuk teraanga googu mu jagleel ku baax ki buñ ci xasee naan benn yoon rek duñu marati mukk mukk mukk dane moom la yàlla jagleel alwasila alwasila nag addis ba daa wax ne daraja ju màgg-màgg la ci ajana ju yàlla jagleel ab jaamam ci jaamam ñi ñaanal leen ma nag ma doon kam koy jagleel ndax yaakaar naa ne man lay doon daldi ne ku ma ko ñaanal rek daldi bokk ci ñi may ràmm bu ëllëgee am na hadis bu ne ida sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan صلى الله عليه عشرا ثم صلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة من صحيح مسلم بتي أبو هريرة أن فمني إذا صليتم علي فصلوا لي الوسيلة قيل يا رسول الله وما الوسيلة قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو بتي يمنج ابن حباس من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا aw shafihan yowmal qiyaama kon al wasila daraja ju màgg màgg la ju yàlla di jagleel yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam foofee ci àjjana
loolu mu ne ku ma ñaanal al wasila yelloo nga bu ëllëgee maramu la moom ci boppam daa wax nañ ko koy ñaanale boo dee xool ci saxiixul buxaari jële nañ ci jaabir ibnu abdillah mu ne yonante bi moo waxoon ne man qaala xiina yasmau an nidaa allahumma rabba haasihi daawati taama والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابحثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة ku dégg ñu nodd mu wax ñaan googu faaw rek bu bis pencee mu yelloo maramu ko waxin woowu nag day bari ay nettali bii mu andi nii def rek aati muhammadanil wasila am ñu def aati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadila lam ca teg wabxashu maqaaman mahmuudan am na ñu jàng wabxashul maqaamal mahmuudan lasi wa atta maanaam net li bi da koo taarawut taarawut maqaaman taarawut mahmuudan te am na net li boo xam day taara yaar yëpp ba tey net li bi ñu yem ci rek ci allazi wa atta te am na bu ci dolli innaka laa tuxliful miihaad net li day bari waaye boo ci xas man rek baax na
li mu ci teg nag ne ba tey yonante bi moo jagoo ramm daa am ramm moo xam ne moom rek moo ko jagoo muy ashafaahatu al kubra loolu mooy su bis bi ci mettee lool taxawaay ba yàgg-yàgg ba nga xam ne buñ leen doon jiite yóbbu sawara it baax na waaye fii mu nekk moom taxawaay baag tiis yaag metit ya mën a tuñ koo dékku dañu def dañu def yoonante bu ñu àkk bëgg mu ñaan suñu boroom mu xeet li mu fi mu joxe ngànt wa ba ak ci yoonante bi nag moom mooy jóg daal di tinu jaami yàlla yi yàlla tin leen àtte leen nag penc mi tas ba ñenn ñu ne jëm fa ñuy jëm loolu mooy ramo mi gën a mage te yàlla jagleel ko yoonante bi waaye nag
ramm mu bokkut ak moom rek yàlla may na ko yeneen yoonante yi ak ñeneen ci ñu baax ñi yàlla may na leen ñu mën a ramm su bis pencee ba tey moom la yàlla jagleel moom yoonante bi ngëneel yu bare bari yoo xam ne da koo soob rek mu gënal ko ci ñi mu sàkk mu baaxe ko xeet ngëneel yooyu ci coobareem rek nga xam ne amu ci kenn ko cay jege rawante na ku cay tolloog moom
yi ñu war a gëm ci lislaam moom ci gàttal juróom benn la muy yàlla ak malaakaam yi ak téere yi wàcce ci asamaan ak yonante yam ko wàcce ci ñoom ak bispenc ak ub dowal waaye nag boo ko dee teqale ay benn benn dañuy xaw a bari bu bëgg cee jukki nag ci ak teqale yi ngay bëgg a dégg daa jëkk wax ne lépp lu bàyyikoo ci yoonante bi mu xibaar nu ko te du lu nu mën a teg bët waaye wér na ne moom wax na ko rek dañ ko war a gëm ku ko wedd rek ñu jàpp ne ab yéefar la lam ci njëkk a tudd nag mooy mbirum malaaka gëm malaaka moom bokkoon na ci juróom-benn yi nga déggoon léegi malaaka dañu di ay mbindaafoon yu sell di leer nañ yàlla may leen ñu mën a soppiku melowoo yeneeni melo waaye faaw rek melowu rafet lañuy melowoo faaw rek melo wa ñuy feeñe day nekk melo lu rafet lu baax wuteeg jinne jinne moom bu dee soppiku di amee weneen melo itam melo yu bon a bon lay melowoo ni ki ab xaj wala jaan te it jinne moom lu mu soppiku melowoo ko rek say boo àtte ko ca loola malaaka amul góor amul jigéen amul lekk amul naan amul nelaw amul sëy ci seen diggante ndegam duñu lekk duñu naan it duñu xayta duñu saw duñu dem ci wanag daal ñi leen yàlla binde it mel ñu lu may jëfe ndigal bàyyi tere malaaka ni ko yàlla binde mënta mooy topp ndigal rek la man dañoo bari nag bari waaye boo xam ne yàlla rek xam na lim ba toll ka gën ci mboolem malaaka yi mooy jibril bu jàllee mikail bu jàllee israfil bu jàllee azrail mu teg ca ñañu solo mu yonante yi moom bokkoon na juróom benn yooyu nga déggoon te ñi ñaari xaaj am ci ñi yàlla wax yi ba noppi ne leen ngeen jottali ñoo tudd ar rusulu te lim bi nekk ñetti téeméer ak fukk ñett am ñu wax ñetti téeméer ak fukk ñeent waaye ñetti téeméer fukk ñett moo gën a wóor li nga des nag di ñu yàlla wax yi rek néew leen ngeen jottali ñoom ñoo bari lool ndax nam ñëwee ca addis ba te ñëwee ko ci téere sëriñ bi mooy boo boolee al ambiyaaw ak ar rusul maanaam ñi yàlla wax yu ne leen gën jottali ak ñoom wax yu te joxu leen diggalul jottali daañu mat cent vingt quatre mille te cent vingt quatre mille yi trois cent treize rek ñoo ci di ñu am diggalul jottali mu am ci nag ñaar fukk ak juróom ñoo xam ne da nga leen a war a gëm gëmu ko ràññeele maanaam xam seeni tur te jàpp ni tur yi ay yonent lañu ñu yàlla yónnee woon ngir nga mokkal seen tur nag da ngay seet fi ko sëñ bi indi ci ay téeréem niki niki mawaahibul quddus wala tasawudu shubaan nga mokkal bayit yi moo gën a gaaw ci nga daal di mokkal tur yi ñaar fukk yeeg juróom da caa teg téere yi téere yi itam bokkoon na juróom benn yi nga tuddoon léegi mooy téere yi yàlla wàcce woon ci asamaan jaarale ko ci yonante yi lim ba nañ ko daan tudde téeméer la ak ñeenti téere ñeenti moom xam nañu seeni tur muy ak tawraatu ba yàlla wàcce woon ci Muusa ak al injiilu ba yàlla wàcce woon ci Isa ak zabooru bi yàlla wàcce woon ci Daawud ak alquran mi ñu wàcce ci sunu sang bi muhammadun sallallahu alayhi wa alayhim ajmain da caa teg bis penc bis penc moom it duggoon na ci juróom-benn yi nga tuddoon léegi gëm ko lu war la mënta ñàkk ku ko wedd dañu jàpp ne ab yéefar la ndax dafa ñëw ci alquran ñëw ci addis boroom xam-xam yépp maase ci li mu ci teg nag ne mbirum asamaan mën na cee jublu wax yi gi daa bàyyi ko ci asamaan lu ñu war a gëm la ba tey mënees na ne da cee jublu rek ne lépp lu yoonante bi xibaar ci mbirum asamaan si maanaam ci mbirum kaw niki arasak kursiyoo sidratul muntaha ak albaytul maamor ak lépp lu mu tudd rek xibaar ko ci googu wàll ab julit war na koo gëm ndax yoonante bi du wax lu may lu ko yàlla wax yu xamal ko ko